jërë ngeen jëf ba tey ñoo ngi ci daral bi waaye aussi ñu am benn nag boo xam ne moom la ñu fi d'après les informations nag dafa am benn homme bu ñu ko tuddee loolu lañ bëgg a xool jërë ñoo ñu ngi delloo siyaar wér euh, ñu nekk fi ci ci daralu Ndindi bi am benn nag boo xam ne moo fi nekk nag bi tey lan nga ñu ci mën a wax ci yar bi. nag bi nag bi daa en ñun waa daral gi. ñoo kii ñu xool tuddee nag bi Ousmane Sonko ndax président président Ousmane Sonko dañoo neex daal ñun waa dara rek ñun ñun booy yëpp ñun booy sën yi ne fii ñun ñëpp Sonko dañoo neex ñu jël nawe tuddee ko Ousmane Sonko moo tax nawi kii daak jarga rek moo leen koy jox ak ngooñ kaase isaan ñëw nit ñëw sax xool la yéene la rek daal lay jox saako ripaas ndax bi bëgg ci nawi waaw dama tax tuddee ko Sonko ah Sonko Sénégal yëpp xam na ne léegi Sonko la Sénégal Sonko moo ko moom bi moo tax Sonko rek ñun ndaw yi ñun Sonko moo ñu moo moo ñu war a génnee fi mu doon nii moo ciy génnee fi mu moo ciy génnee Sonko rek ay bi Sonko la. ay yar nag bi nan la demee woon. yar nag bi nag bi métti na ndax xontu ñëpp xam ne seer na xoolal ripaas li mu jar saako kii nag 16000 saako jar nga 14000 xam nga loo seer na ripaas war naa mën a yomb te sa ripaas 8000 la doon jar gën ngaa seer 8000 la doon jar 7000 léegi dem na 14000 17000. loolu xam nga loolu mu jaaruwul ci xam nga leer nga nga yar yu nag ba mel nii ci 14000 ak 17000 ak saako ngooñ kii. 8000 8000 xam nga loolu jaaruwul. loolu leer li li mu lekk par jour moom ñun ñëpp a xam. tey nag bi Sonko ngeen ko tuddee tey man en tant que taskatu boo ma ne la woon ñaata nga ma koy jaay. Sonko laa soxla kii kay 5 millions moom la yam laas. yow waay waay yow fekkee yow nga ne du wax Sonko dama koy wàññi defal la ko 2 millions. cinq millions la ma jox waaye yow boo waxee ma defal la ma defal la deux millions yow. kon nag bi jaar Sonko ji rek jaar na fi mu doon wax cinq millions laa ko jaay waaye yow boo ñëwoon ni ma Sonko da da dama koy defal deux millions yow. deux millions laa koy defal kon yow waaye nag moom jaar na cinq millions fi mu doon nii moom. Ah, tey si dara lu nit ñi bi aussi lan ngeen bëgg ñu yokkal leen ko si côté sécurité. ñun sécurité moom amuñ ci dara sécurité moom dañ ko manqué pare ci tamit manqué nañ manqué nañ sécurité te xond bi seer na mm-hmm. sécurité daal sécurité bëgg nañ ko. ak xond bu yomb loolu daal bëgg nañ ko moom buñ sañoon mu ñëw tay tay tay tay bu ñëwoon mu baax ñun daal loolu moom moo suñ manquement boo xam ne ñun ñu ngi koy yëg chaque jour ñu ñu ne ci dara gi fii da ngay génn di am lu am gën a ñu do ay gis dajek ay samba yëpp dafiy am chaque jour parensaay nga dégg diw génn na yónn yónn yónn ay rakam ñu nañ ko nangam nangam yooyu kasa kasa yooyu yëpp war na fee mën a jógee te dañuy war a jàppale ñun ñun ñëpp liggéey doog mooñ tax a jóg wut luñ yóbbu suñu njaboot waaw kese ay xale lañ nag waaye ay patriote lañ boole ci tamit. ñoo ngi lay mu mel ni ne nag bi ñuy waxtaanee te waa daral bi tuddee ko Ousmane sonk nag boobu nga bëgg de. laa bëggoon boobu laa bëggoon waaye yàlla dogal na ne moom xam naa ñëw naa ñu ne ma jar na waaye seer seer man daal waaw seer naa man ndax man nag bi ma jënd 850 laa ko jëndee waaye damaa bëggoon beneen boo xam ne moom mooy ëpp bi ma jënd waaye bi ma ñëwee fii xool nag bi. ñu ne ma Ousmane Sonko tudd naka moo koy waxaale ñu ne ma jar na te 5 millions lañ ko jaayee ginnaaw bi ci laa laaj ne nag wi moom xanaa daral gi moom benn nag yaakaar naa ne daral gi wër naa ko waaye gisuma fi nagu mel nii waaw lii nag moom xam nga rek fierté gu sénégalais yi am ci Ousmane Sonko ak bëgg guñ ko bëgg ak wan gum leen wan dëgg loola waral lii am kon nag day doon loo xam ne moom moo ko jëf quoi waaw àdduna moom loo fu jëf rek nga am loo fi jëf doo ko am kon nag sant nañ bu baax daal. yow euh, bu nekkee ne nag bi keneen jënd ko ñu tuddee ko Ousmane ko nga yor xaalis bi da koy jënd. bu baax bu baax ndaxte bis bi moom jaral nañu lu ëpp 5 ñun moom luñ am lu ne Serigne kon luñ am lu dañ koy delluwaat ci moom buñ ko fi fekkoon tey te mu nekk suñ poos barke Cheikhul Khadim dañ koy jënd amul sax ma dem ñëw waaw bis bi moom daral nañu lu ne ndax boo demee ba sëñ Saliou Mbacke di wax ne. gisuma ci àdduna lu ma jaral jaay kër waaye bu màggal gi jub si te yoruma leen lu ma ci def jaral na ma jaay sama kër barke Cheikh Fall nii la ko sëñ Saliou waxee kon na nga xam ne màggal gi mooy lépp jërëjëf gis ngeen kàddu yi nga xam ne euh, moom lañ ci yëkkati mu mel ni ne aussi gis naa borom nag bi xam naa damay jéem a waxtaan ak moom bu nekkee ni mën nañ mën naa ko am rek Bassirou Ndiaye ginnaaw gi ñu la nuyoo ñu fekk fii benn nag ñu ne Ousmane Sonko lañ ko tuddee mu doon nag boo xam ne macha allah am na benn dayoo bi si daral bi lan nga ñu mën a wax si nag bi. waaw ginnaaw bañ leen nuyoo di leen <coughs> siyaare di leen sant te di leen ñaanal jàmm. di ko sàkku ci ñëpp rek di nuyu Sénégal ñëpp. di rafet lu baax comme ni ngeen ñu sees la fii ci Touba ci màggal Touba gi. Ah, di di leen wax ne ñu ngi leen di ak jàmm. waaw nayu man maa moom. Euh, yàlla dogal na maa ngi ko yor euh, am léegi mu am benn temps bi ci man. waaw pendant amagut at sax waaye maa ngi ko génne woon ci benn ferme. waaye bi ma ko jëndee nag wax dëgg yàlla jamono yooyu euh, xam nga ko xool Gusara importé la. mais man maa ko sowal sama bopp. tuddee ko mu sell mi. bi kii nag bi ma ko jëndoon xawoon naa seer trop ndax xam naa ne. gars yi 3 millions yi tuuti lañ ma loon mais hmm. instant bi nag jaay naa ko sama benn collègue mais prix bi nag dama koy nëbb ndax xam nga amul prix. <laughs> la moo tax nga choisir euh, euh, tuddee nag bi Sonko te bëri na ay leader politique yu fi ne. non Sonko sax pas ñun moom xam nga ñun ay nit Touba lañ. Hmm. daanaka doxuñu ci ay politique. Hmm. mais Sonko toppewuñ ko ay politique ak yooyu man du cadre politique. mais yàlla dogal dafa nekk nit ku sell. maanaam cadre am vie am boo xoolee jàng alxuraan set sell bëgg lu baax boo xoolee dañaa Sonko ay nitu fitna la violence bi et cetera mais boo xoolee stratégie am kanamam ni mu mu jëflanteel nga xam ne kii nii nit ku baax la ñun dañ koy du question xam nga ñun ñun ñëpp ay suñu borom ni mu joxee Macky xel jox ko Sonko xel ñun ñi doon ay sàmm di ay gaynaa ko noonu la ñu amee xel ñun ñii kenn ku nekk buñ la joxoon réew mi nga déroulé ko teg ko ci ay axe comme ñoom ñu koy tege ci axe te ay nitu daar lañ te ñun liñ gis ci moom jàpp nañ ne ku sell la ku set la ku baax la ñu suwaa ko tuddee ko Sonko gars sax dañaa ma ext nee na man maa suwaa loolu gisee bu ma ne ko bu ma amoon stress su ma moom ne ko Sonko bu ma xoolee rek lépp lu ne ci man day dañ moo tax man adduna dara toromisé ma fi mu ne coowalee yi nga gis ni mu am kook yooyu man su ma xëyee xool ko day mel ne mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi sama wet mais kenn ku ni koy sentir gars yi bu ñu wax affaire bi extra extra naa kii ñun ñoo ko téye bëggal ko suñ bopp euh, tuddee ko ko ndax euh, sëñ euh, kii Mbacke mi fi ñëwoon te bokku ci Ousmane te mu dëkk mbaake bi mu fi ñëwee maa ngi ko koy expliqué gars yi sax xamuñu ma exactement ndax man doxuma ci yooyu carte kii sax ëmma ko nu mu tuddati carte bi sax ak bokku ci gars yi ëmma ko mais soit bëgg-bëgg kenn ku nekk yàllaa ko kii ndax ma amoon naa beneen mag nag boo xam ne tudd naa ko Macky Sall bi ma ko jaayee ci lébu yi laa ko jaay ren nii ci ci ci kii Macky Sall bi gars yi naan sax comme Macky dem na ko waroon <laughs> dem mais ko moom man maa bëggul mu dem mais mujj naa ko joxe sax waaye joxe gi gën a lu ma bu ma sañoon damay damay damay dund ak moom rek heure bu ma xëyee di cat bi mooy nag bi amaat na ñeneen ñu ko bëgg te gars yi ngi yokk xaalis bi. nag bi fii may wax ak yow nii gis naa koo xam ne nii mi ngi ne ma boo mënee huit cinq cent ma jox la mais ma ne ko ki ma ko jox sama sama sama lépp la ci man du ma tudd prix bi sama digganteek moom kooku bu soxla woon nag bi bu ñëwee ma ne ko nawaa ngi ni mais am na gis naa koo xam ne nee na moom boo nangoo huit cinq cent am na ku siiw ci réew mi koo xam ne ni koo xam ne ni yaakaar naa moom xoolul xaalis ku siiw ci réew mi damay bañ a tudd ay tour nag di muy demee neneen mais ko sëriñ la te ku siiw ci mi la bari na taalibe trop am na benn taalibe bu ko bëggoon engagé huit cinq cent mais da dama ko kii joxe naa ko ba noppi mais xam nga kii moom joxewuñ ko pour xaalis ak yooyu ndax man joxe gi bu doon pour xaalis dong du ma ko joxe man ko xool moo ma taxaw ni jëmm ji moo ma gënal ay milliards pour pour mu leer rek ñoo xam ne élevage bi ma gën a lancé ministre ministre de l'élevage élevage du question maanaam xaalis bëgg-bëgg la ak gëm-gëm passion la ñun ga ponkal yi nga xam dañ leen tudd ci kaw ñoom abukan ak gaa yi nga xam ne nii waaw waaw ñoom Arona ñoom ñoom Galaye ñoom ñëpp te bu te bu te bu financement génnee gars yi la état bi jël jox leen ay biens ñu dem Brésil extra extra mais ay jeunesse ñi ngi ci am xam-xam am compétence bi am bëgg-bëgg bi te mën a dérouler mën a améliorer rage bi ndax kii ñun ñi ngay gis ni dama ko boole woon ay ay ay yàlla dogal na léegi poids bi mu jël may ragal bu yéegee femelle yi day day daane femelle yi mais ñun kii liggéey biñ ci liggéey li moo ci gën a tuuti ndax yéen kii ngeen gis ndax am na yeneen bagage yoo xam ne ñi ngi ci gannaaw yoo xam yu gën a extraordinaire yi lu mel ne Zirlando lu mel ne ay Montbéliarde Holstein yooyu yëpp dañ ciy liggéey mais comme màggal lañ ne te gars yi dañoo baar ci Sonko damay wax ak ñoom ci yooyu rek incha allah. <laughs> Euh, tey lan ngeen bëgg euh, par rapport rek si daral bi si côté sécurité maanaam yu mel noonu. waa ci côté sécurité bi di sant président bi Fata di sant commandant bi fi nekk mi ngi def liggéey bu am solo wax dëgg yàlla gendarme yi ñu booleel ñi ngi def seen kéemtalaay kàttan ci patrie bi problème yi fi am yëpp ñu ngi koy régler tout est bien xaalis bee ngi circuler te kenn amul benn problème insécurité bi nag fi mu amee mooy ci ginnaaw mooy li mel ne biir biir biir Touba dëkk yi ñu wër-wëraan noonu nga xam ne gars yi dañu fay def ay escale yu ndaw foofu moo xaw am danger mais biir daral bi amul benn danger côté euh, sécurité bi c'est côté ndox mi c'est côté éclairage bi c'est amuñu ci benn problème mais problème bi fenn rek la am mooy si si bitti daral bi si bitti daral bi moom biti daral bi moom wax dëgg yàlla bi gan ñi doog a ñëw gars yi doon nañ tiire ay balsax di di di di def ay scandale yu metti mais bi gendarme yi mujj nañ ci gérer zone wër fii yëpp di patrie def ay patrie mais wax dëgg yàlla daal jàmm ji dellusiwaat na ndax fii moom Touba la jàmm rek lañ xam te bëgg nañ képp ku jógee Burkina wala Mali wala Mauritanie boo ñëwee fekk fi jàmm.